am nañu plus de sept mille milliards de francais CFA pour construire le Sénégal d'ailleurs il serait important ñu xam ndax ñuy wax dañuy wut réew mi xaalis boobu ñu réunir ba pare bu ñu ñëwee ndax dañuy changer programme wala programme mu président Macky Sall la ñuy appliquer loolu jar na leeral parce que mobiliser nañ tout ce qu'il faut pour. construire la Sénégal de 2019 à 2024 loolu nag dafa am tour am sant mu ngi tudd PSE muy plan Sénégal émergent mu ngi sant PAP 2 muy plan d'action prioritaire numéro 2 su fekkee nag ku ñëw da ngay bëgg a teggi loolu yaakaar naa ni dañuy delluwaat CPI delluwaat di tàmbaliwaat Le pont de Ziguinchor, le pont Émile Bagnan sera reconstruit. Le pont de Tobor, le pont de Katakoulos, le pont de Djaken, le pont de Djouloulou et bien sûr le pont de Marsassoum qui est en travaux. Concernant l'hydraulique, plusieurs forages déjà réalisés par le PPDC et le PUDC 2 prendront le relais. Déjà dans le Oussouy, à Aer, à Balengor, à Boutoupa Kamara, à Bogal, à Marsassoum, à Tambadjan, dans le Goudon, sous dans le Medina à Linkering, à Giro à Kolda, pour un investissement global de milliards pour l'hydraulique rurale.